sigil te weytoo madru youtube nanti nan ci yow bu wer te bul faale ka wuy seek ka farja ki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat nya daawoote ña daawaate mustafa ci jàmmaarloo gi ñuy war a pak-pak yi nga xamni ñoy taxaw ci kanamu askan wi ci ay wëlbatiku ak ay changement yo xamné day toucher société bi lépp kon yaakaar naa buñu joxé ben philosophe thème bu aju ci walu société jox nañ wala delloo na bu ca boy boy sëñ Fallou Moussa Hassan comme ni ngeen ko xamé ci dëkk bi la dëkk fi la jànge xam-xam jóge fi dem libi dañuy tàmbale rek jox sëriñ Fallou Moussa Hassan mu waxal ñu ci les daayira face au défi de la mutation sociétale sëriñ Fallou Bousso kon kàddu gàngo aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokk yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoo ci jotaay bi di ci jiital alxalifatul am lil muridin ak mboolem njaboot sëriñ Tuubaa gi nga xam ñoo ne ci gannaawam di nuyu baax ñi nga xam ñoom lañu seqal jotaay bi professeur mubarak ak inspecteur Sambake ak sëñ Abdul mi nga xam ne ni mooy yore jotaay bi di nuyu sëñ Mbàkkeelu Muhammad ak mboolem ñi nga xam ne lañ fekk ñuy waa daayira bi di ittihaad ni ko sëriñ bi waxee kon tomb bi ñu jox ñu war cee waxtaan mooy taxawaayu daayira ci biir sopp sopp ku yi am ci biir askan wala boog taxawaayu daayira ci biir changement sociaux yi nga xam ne nii dana am ci biir askan wi bu ñu xoolee nag daayira dañuy gis ne kenn amul sikk sàkk ci ne daayira lu am solo la ci tasaare njàngaleem sëriñ Touba. bi nga xam ne ni mi ngi sukkandiku ci jàppalante ak mottalante ci diggante doomu aadama yi nga xam ne ci ràññee kenn kenn waaye itam ku nekk war ngaa bàyyi xel ci ne mën mënta taxaw taxawaay boobu lu dul ne su fekkente ne dañoo fexe fexe ba daayira di sàmmonteeg ba lu dañoo fexe ba daayira di sàmmonteeg li nga xam ne ni mooy seen taxawaay kon ni ñu ne daayira am na solo lool ci tasaare njàngaleem sëriñ bi radiyallahu anhu ci li ko tax a jóg mooy mottalente ak jàppalente ci biir nit ñi doomu aadama yi waaye itam gis nañ ne daayira balaa mën a taxaw taxawaay boobu il faut day sàmmonteeg rôle bi nga xam ne nii moo ko taxoon a jóg dëgg dëgg dëgg ndax daayira ca cosaan ñi ñëpp xam nañ ne la ko sos du woon dajale xaalis def ko ci benn bis benn activité boo xam ne nii folklorique lay doon ñu dépasse ci xaaliss mu jeex ñu xëy waat dina waat wala sax ñu dajale alal jox ko kenn nit donte loolu lu bax la waye lu bokkut tak li nga xam mo taxono taxoon a kon daayira ci ciosan cadre la won bo xamni la ko taxone jog moy dimbulenté ak jappulenté ci ño xamni ni ño bokk yenn yoon wu ñu jaar di ci dox kon bepp ci slay bo gis bepp principe bo gis buy dox bam mu ay soppaxandiku day dugg ci biir ay deggine yu bes dugg ci bir xalaat yu bes dugg ci bir ay yu bes duggaat ci bir mo waral ñu dem bam yag ñu gis daayira yeneen soppandi commencé dugg ci bir am yenen activité yo xam ni ñi nga jankonté ak moom kon nak gëna ba mom évolution wala manam sop maanaam yoy mën ta ñak ci principe yi kon dañu gis ne il faut samonté ak la taxone daayira jog bu ñëk té moy jappalenté ak dembulenté ci bir ño bok xam ño xam ni ño bok pass pas-pas fuñ jëm kon li ñuy tënk day jëm ci lan mooy li ñuy wax mutation sociale wala sociétale wala boog changement sociaux yi bu ñu ko wax lañu ci jublu ak ban taxawaay la ci daayira war a am baat bi ci arab mooy taxayurul ijtimaa yi mooy soppiku ci biiru askan askan woo gis day mel ni doomu aadama moom nit ñoo yam nit day judd màgg ba màggam jeex mu commencé wàññi màggat ba xëy faatu askantam day judd di màgg ba àgg ci jobaxtan la commencé war wàcc ba daanu beneen askan jóg noonu lay demee

moo tax léeg-léegi soppiku yooyu mën naa doon ku jëm ca kanam dox ay jéego ñu koy tuddee progrès wala développement wala mu nekk ku jëm ca gannaaw ñu koy tuddee maanaam lu dox jëm ca gannaaw wala boog su développement wala yu mel noonu soppiku kooku nag mënta ñàkk ci askan moo tax ñaare boo gisee ñi nga xam dañu wax ne nangam daa bette ci biir askan wi fi la xëy ñi nga xam am nañu seetlu dëgg-dëgg mbir mi du leen bett dañuy joxe misaal maanaam ndox moo dugal ci biir frigo day soppi ko par degré di soppi ko par degré di soppi par degré ba mu yàgg bis ñëw jot jamono ñëw mu nekk leneen tudd leneen ñu tudd glace waaye mel noonu dootu tudd ndox bu fekkente ne yow nag xamoo woon ne glace gi mas naa nekk ndox da ngay jàpp ne naka ca glace la nekkoon fekk ne dafa jaar ci ay ay soppiku par degré ba agsi foofu loolu mooy changement quantitatif ak changement qualitatif maanaam soppiku par degré lay dem. mucc dañ koy mën a absorbé maanaam dañ koy mën a dégg te du feeñ bu baax ci seen jikko du feeñ baax seen melokaan bu soog bu gaawee nag nit ñi dañ ko mën a jël dañ ko war a jël bu ko defee mooy maanaam maanaam maanaam def dérapage bi mën a def di ànd bi askan wi ñoom ñoo fi indi. ci misaal ñu ne kon bu soog kii mën naa ñëw sooy bàyyi rek am na ñoo xam ne environnement bi soog kii ci am da ngay day feeñ ci biir askan ci misaal catastrophe naturelle yi am. suuf si yëngutu wala ndox mu war a gaan wala géej gi yëngutu wala yu mel noonu ni ñuy soppee biir nature bi noonu lay soppee biir askan ci lu mel ne maanaam bekkoor bekkoor bu ñëwee ci biir taax yi te loolu ci ñoom la départ na ñoo ko ñëw di am te amutoon mbooloo yu bees yu kër seen soppam la ko day feeñ ci biir askan te li misaal yomb naa xam mooy ci wàllu jiw yi ñu dund bu Sénégal li mu demee woon ñëpp ñu bokkal benn mbir ñu bokkal bokkal lépp ñu def ba mu yàgg nag ay groupe yu bees commencé ñëw di tënk ci yeneen mbir di tënk ci yeneen xalaatin loolu day feeñ ci biir dundu ñu askan wi. waaw léegi nañ ma fekk ci caméra yi nekk. kon yooyu mooy côté démographie am na ci loo xam ne nii ci facteur culturel la maanaam ci aada yeeg cosaan wala boog mbatit su sopp amee ci cosaanu xalaat yi wala boog mbir yi nga xam ne ni ci lañ dëkkoon loolu dafay feeñ ci biir dundu askan wi mooy li ma joxoon misaal léegi. ñu dem ba mu yàgg ñu gis ñoo xam ne nii dañoo am pas-pas yu bees yoo xam ne nii boole naag pas-pas yi ñëw di njëkk ñu ñëw duggaat ci biir mbooloo bi ñoo ñu dañu indi soppi ko ci biir doxalin bi loolu boo ci yàggee maanaam avancement di am wàllu xam-xam ak wàllu technologie loolu yëpp dafay ñëw fekk si yëf yi boo defee des day daal ci biir misaal bu baax rek ñu ne la tey dëkk boo xam ne ni amutoon courant boo ko xëyee xëy dugal ko courant nga gis da ngay soppi ci biir dund askan wi day soppi seen xalaat day soppi seen dëggin day soppi seen gisin day soppi même seen yaram dafa soppi ndax instant bi jigéen ñi nga xam ne ñoo am di dëgg ko soxla seen korom boo jigéen ñoo xam ne di dëgg di soxla di dëgg lépp ko am ay seen seen seen seen formation moom. dundin bi tam noonu lay soppi ko soppi yooyu nag ni ma ko waxaloon léegi su fekkente ne bàyyi nañ ko xel. ànd ak moom boobaa mën naa fa nekk ni ay aspect négatif yu bari waaye nag suñ ko bàyyiwul xel day jur maanaam yu bëree bëri yoo xam ne nii ay aspect négatif lay mel ci biir askan bi ci ëpp mooy li ak taxalu saxaab yi te mooy dafa posé culturel maanaam boo xoolee tey nit ñi ni ñuy avancé ci wàllu matière ak ni ñuy avancé ci wàllu mentalité dañoo bokkul man ngaa gis koo xam ne ni tey ñaari at nga gis koo gis bu nekk milliardaire daal di am bu nit di am ci àdduna am toll woon yooyu suñu foofu mooy war a day gis rek man na ñu yor ci matériel bi daa bëri lool lool lool waaye boo jëlee jéem a toolu xalaat day gis ne ci des la lu bëri loolu dañ ko war sa xaatu maanaam kon ñaari yooyu ñu ñuy doxalee bokkul soppi ci wàllu alal mën na àdduna dafa gën a gaaw soppi ci wàllu mentalité ñoom ñaar nag bu ñu rawantee mooy jur li ñu tuddee al huwa ak aar bi aw li ñu faussé culturel bi mooy wet day gën a dox ay yi bu ko defee dina jur maanaam moom itam ay soppi yu bëri ci biir askan wala boog aspect négatif ci biir askan wi boobu nag li muy jublu ne jëluñ ci ay matukaay mooy ak taxaluf ijtimaay maanaam dimbalante gi waroon am waroon am ci biir société bi doo ci am dimbalante doo am mooy waral léegi fi ne day gis soppi kàggu moo waral léegi koy doxale da nga koy doxale noonu loolu dootu am yooyu yëpp nag la muy jur kon mooy yàqu buy am ci biir jikko yi xarteen ak jikko yu mbooloo ndax duñ mën a maanaam duñ mën yooyu nga ne mooy am ci biir askan yooyu nag bu dee am dafa am lu muy ànd li muy ànd mooy adaptation sociale maanaam soppiku bi am dafa am seen liggéey mooy fexe ba nit ñi nit ñi ñu soppi ko ba nit ñi seen doxalin di soppi ko ba nit ñi bokk loolu boobu ñu fexe ba soppi yooyee di dëppoo dundinu nit ñi ba aspect négatif yooyu ñu ci doon di ci loolu lañ ci arab ak ak yëpp ay ijtimaa kon li ko tax a jóg mooy adaptation sociale mooy ñu fexe ba changement yi war a am ci nit ki wala boog ci biir askan wi ñu dugal ko ba soppi ku am ci biir askan wi ak soppi ku am ci jikko yi nii seen doxalin man am na lool bu ko defee maanaam yi nga doon léegi du si jublu mooy tax ñaari yoo xam ne maanaam dafa mën a équilibré wu la benn ci yóbbu loolu su loolu amul nag mooy jur taxaw saxaar yi mooy maanaam procédure culturelle boobu wala boog maanaam. arrière man dellu naa ci wàllu doxalin askan wala boog jikko yi. misaal la tuuti ñu ciy joxe tey su ñu waxoon tey nawet bi baaxul ci misaal loolu sotti la ci wàllu naturel nature waaye kon dafay laaj ñu jël benn maanaam benn maanaam jënd bu gaaw boo xam ne ko tax a jóg mooy fexe ba ak xiif du am ci biir askan ndax te bu la xam ne bu xiif amee am na lu muy jur ci ay yàqu-yàqu ay jikko ak biir askan yoo xam ne nii dana nekk daan naka lay tàntaan ñu gis leen àdduna bi ñu koy organiser dund bi ñu gaaw nga xam ne organiser dafa gaaw lool lool lool jumtukaay yu gaaw bari lool lool lool lool. moo tax su fekkente ne dafa nga soppi mankaane bi ñu ànd lee dox ñuy dox maanaam wàllu àdduna dox wala ba wàllu matériel bi dox matière dox te wàllu xalaat yi du dox moo tax état yi xam nañ ne kon loolu noonu di nekk. moo réew da ngaa doon fekk ñu ngi social liggéey mooy fexe ba soppi yooyu dañuy mën a fexe Amen. ngay jonjoo mbooleem couche sociale yi nga xam ne nii ñoo ne ci biir askan wi kon mën nañ cee xam lu bari nag suñ ko xamee ba noppi nag kon bi ñuy teg point bi nga xam ne nii ci lañ war a jaar pour régler problème yooyu ñoom it mën nañ caa ñëw bokkaat fekkee ne dañuy leen kat gëstu leen ba xam ne jafe-jafe bi nga xam ne nii mutation sociale indi na ko ci biir askan wi mooy yàqu-yàqu jikko yi ñu ànd ci daayira yi ba nangu li ñuy teg plan bi kon mooy li ñuy fexee ba jikko yu baax da ci koy jël soi loolu nag kon mooy il faut kon ñu jéem a influence bu baax ci comportement de maré loolu daayira yi mën na ci jàpp baax ndax daayira bu nekk tey woo dajeeg say membre dañ bokk ci bi lu bëree bëri mën nga koo jàllale lu bëree bëri mën nga leen wax ñu koy joxe te dañ ko noonu wax da ngay bokk mbooloo kon loolu mën nañ caa dox taxawaay bu am solo tasaaroo bu daay tasaaroo yi ñoom danañ xam bu boobaa wan yoon moo gën a gaaw pour mën a bàyyi jeexit ci doomu aadama seen biir dajee ñu daje nga xam semaine bu ñu daje wala weer bu ñu daje buñ dajee mën nañoo dugal seen biir waxtaan yooyu nga xam ne moom la ñu proposé pour saafara melokaan yooyu nga xam mooy melokaan yu bees yi am ci biir doomu aadama mën nañoo bokk dugal seen loxo ci xeet ñàkk nga xam ne ñàkk dafa bokk ci li ñuy tasoo sociétal yi muy jur bokk maanaam ñàkk a dimbalante bu amul rek dimbalante bu amul ñàkk dafay i nekk kon daayira yi mën nañu dugal seen loxo bu baax ci xeex ak ñàkk ci biir askan wi ci kaw dimbalante ak jàppalante ñu néew doole ñu jàppale leen ñi amul métier ñu jàppale leen ba ñu am métier ñi ci am métier ñu jàppale leen ba seen métier mën a bëri koom-koom ci wàllu mën-mën waaye ci wàllu xalaat xalaat bu jox boobaa daayira bu nekk ngaa sos kuréel boo xam ne a jóg mooy bépp membre bu bokk ci daayira bi danañ la jàngal ba nga mën a lire a bind mën a kantin mën a def mu fexe ba di fa def yu mel noonu loolu daayira yi mën nañ seen loxo bu baax daayira yi mën seen loxo ci sàmmante unitas maanaam wala boog maanaam trois bâtiment wala boog li nga xam loolu li nga xam ne nii moom lañ ci bàyyi woon. man dañoo sàmmante moom baax. écran plat bi. ci misaal bi waaye damaa gàtt. bu nekk da ngaa mën a gën sa biir da ngaa mën a gën mën nga ci dugal ay ponk yoo xam ne nii da ngay bàyyi xel bu baax maanaam loolu li nga xam ne nii moom la ñu sàmm ñun. tàmbalee ko ci tool bi tàmbalee ko ci waxin bi tàmbalee ko ci doxin bi tàmbalee ko ci jëflante yi ñun yëpp nga dugal ko ci ba nga xam ne dañ naan ku bokk ci daayira bi il faut nga respecté nangam ak nangam ndax mooy sàmm loolu la loolu daayira mën a jéem a seen loxo baax a baax foofu kon gën a taxaw ko mën nañoo proposé ñu am ay daayira yoo xam ne ni dañuy spécialisé wu ci dara nga gis daayira yoo xam ne nii la ko tax a jóg mooy dafa spécialisé wu ci wàllu wér gu yaram ci misaal suñ waxoon na ko léegi tabax hôpital jàppale nit ñi ci faju ak yu mel noonu ku am ordonnance ñu dimbale la ak yooyu mën na nga xam ne loolu si yëpp am daayira boo xam ne la ko tax a jóg mooy jëm ci wàllu njàngale nga xam ne ku taxawal école wala nga taxawal daara ñu lay jàppale ci daara ji la nga mën koo yor bu dee subvention yi maanaam bu misaal ak yu mel noonu ak li defee ci daara loolu mën na xam ne ko tax jóg mooy sàmm noonu li nga xam ne nii moom la ci mag ñi wala boog naan moom ñu bàyyi la dañ war ko sàmm kon taxawaay boobu daayira mën nañ koo taxaw ci biir bu ñu demee bay teg yu mel kon bu ñu commencé nañ plan bi daayira mën na jéego seen loxo ci doxal plan boobu itam wéyal ko daayira mën na jéego seen loxo ci li ma xam ne bu ñu ñëwee ba ci évaluation xam ngeen ne jafe-jafe bu mënti doon boo tegee sa plan ba noppi ba exécuté ba noppi il faut que ngay évaluer ndax boobu évaluer doo xam doo ci doo xam ngeen war a jubbanti doo xam ngeen war a defaraat daayira yi mën nañoo taxaw taxawaay bu am solo ci fànn boobu fànn maanaam maanaam évaluation ndax li ma waxoon léegi ci jaxasoo gi jaxasoo biir askan wi jëflantee maanaam ñi nga xam ñoo leen dégg loolu jàppale leen te danañ mën a fexe ba leen doon dugal ci biir ngi joxe waroon joxe wala joxul doon waroon joxe jub na wala jubul loolu mën a mat kon nag bi yooyu nag bi ñëpp mooy il faut ñu def formation continue ci leen di yee ci wàllu xam-xam di jàngal leen yokk seen mën-mën yokk seen xam-xam yokk seen i gisin bañ mën a bañ mën a mën nekk mën a jaxasoo maanaam doxalin askan wi yu bees bees yi dugg ñu mën koo xam mën ngeen ko seen loxo mën na ñàkk itam daayira bu nekk am règlement intérieur bu bu fixe boo xam ne nii dañ koy respecté baax nga xam képp ku bokk ci daayira bi da nga koy respecté da nga koy respecté ci misaal tey xam nañu ñu bokk ci aada ci misaal yu bëree bay sotti ber ci askan wi daayira yi mën na seen règlement intérieur moom la ñu ku ci bokk kat tey góor loolu def naa ko ci misaal yi ñuy bañ yéen ko sama bokk yi yéen ñu koy aaye ndax loolu dafa wuute suñu aada suñuy sant ñu ne la boo ci bokkee dañ lay aaye mees doo meesu doo xeesal doo def mel noonu doo sama gàpp ndax yooyu dëppoo suñu aada suñu cosaan dëppoo wuute suñu loolu la ñu xam moom lañ doon loolu kon il faut que ñu demal ci biir règlement intérieur tënk ko ci loo xam ne nii ku bokk ci daayira bi da nga cee dangoo tënk ndax du force il faut que daayira yi jéem a moderniser seen rôle léegi bañ a tey yam ci aspect contrôle yi maanaam a teg plan boo xam dañ koy étudier mu bi lii moo ko tax a jóg te ci yoon bii lay ak fuñ jëm ndax ko ci biir ak fii laa ko te bàyyi ak bàyyi fa boobu loolu mënut a ñàkk kon yooyu yëpp dafa dajee kon gars yi mën naa def bu ñu ko tënkee mën naa def yu mel nii bi ñëpp mooy mooy ñu conscientiser membres yi ci bopp yokk seen niveau seen mandat bi maanaam seen xalaat ñu yokk mu jëm ko seen xel ñu gën koo yokk ba mën a dékku maanaam mutation sociétale yi nga xam ne moo ñu leen fekk il faut que ñu yeewee ci wàllu technologie bu bees nga xam ne mooy bare lu muy sot ci biir askan wi ñu yéeneen ba daayira maamu daayira bu nekk nga xam loo koy jëfandikoo ak loo ciy dugal ak yéen lan la mën a yàq sa wala la mën a gàtt ñu bàyyi sa jëlee ñu bàyyi sa jëlee bam yéeneen ci li nga xam ne ñëpp ko bokk moom moom ñii moom la ko am moom it yéen ci membre bi nga xam ne ñëpp ku nekk boo ko jëlee war a sàmmante ne. yéeneen loolu suñu dund dafa laaj. maanaam li ñuy li ñuy ànd ak suñu bopp loolu dafa laaj. suñu yëf yi bii moom it mën na moom dañuy yàq dara. war na la fexe dem ba loolu ñu sàmm ko te def ko muy sa référence képp ku bokk ci daayira bi dañu naan la sa référence mooy jàngale seen ci misaal jàngale seen tubaab seen tubaab bi ñëpp jàngale na ci nooy waxee jàngal na la ko nooy solo jàngal na la ko nooy toogee nooy xoolee nooy defe lépp dafa ko jàngal ñu ne kon dañuy dégg référence bu leer nañ ñu ne ko lu mel ne danañu projeté ay film am film boo xam ne jàngale loolu wane ko léeg-léeg ñu def ay ay documentaire léeg-léeg ñu def ay camp de vacances maanaam maanaam ñu dem vacances wala bu wér te bul faale ka wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha